salaamaaleykum mbokku internet u Dakar Midi ak mbokku internet u wasaare ñu amati mbégte naa la ak kontante ñu ngi fi nga xamante mooy rond-point Yoff si Brosse Dorée bi fi ki nga xamante ne mooy Soriba Kouyaté di def ndogu day ak li nga xamante mooy ay fansam di joxe ndogu yi maanaam boo xoolee gars yëpp a ngi ci affaire yi waaw Soriba mu ngi ne mosul jàllaaba bi mu ngi ànd ak yi di jox ñi nga xamante ne mooy ndogu def lu am solo gis nañu li nga xam ne mooy les jeunes artistes ah wala tamit les les jeunes talents ñu ngi créé lu affaire bu am solo boo xamante ne spécial ay ndogu yi def di ko jox jaam ñi. Basir loolu nee na nekk na lu am solo daal lu amati solo tamit ci réew mi mais naa la moom Serigne Ba Kouyaté xale bi nag daanaan la borom Ndeela yaay booy ana Ndeela <laughs> waaw waaw. auzu billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wa sallallahu taala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim lam yabra misl musa muhammadin siran wa jaran fil baraya samadin وجارا في البرايا صمدين لم يبل مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا صمدين مدلنا الاسلام والكفر ما وبنصيحة لكل زمان eh, président ngi lay ni war ma woon nga maa ngi lay ziar maa ngi sant bu baax a baax. mais nomb naa la Pape Faye. maa la raw bële frère. tey bu naaj taxaw si rond-point bi fii jox ko ay ndogu jox ko li nga xamante ne mooy chauffeur si. ñi nga xamante ne mooy ñëpp daal ku ne gis ngi sa ba si ambulant yi. tey noo gisee loolu. waaw mais kontaan bu baax a baax Abou. wax ne kontaan nañu bu baax a baax. fan si club Sori waa Kouyaté ñoo def li ngeen gis ni yëpp ñu nekk ay xale nekk nekk ay ndaw àndandoo bokk ndey bokk bokk baay kenn ku nekk mënoo nga jël sa xaay def ci loo loo neex mais bi ñu leen waxee initiative yi man ak Elmo dañ ci ànd ak ak ñun rafet la ko mu nekk aussi idée aussi bu naay bu naay si lool voilà jeunes talent gars yi jël nañu moto bi di ko def lu ñu as néew lu ñu am di ko bokk ak seen fan si ak euh, population Sénégal tey tey incha si foofu tamit loo ciy wax. waaw mais loolu loolu mooy na ko nit ñi na ko na bi di gën a continuer. parce que affaire la boo xam ni bu nice la. et puis bu am am sol solo la. parce que ki woor ba ngoon jot nga jël benn tànn ma sax jox ko ay tiyaaba yi tiyaaba la. nga jël ay teranga yu bëree bëri jox ko ñoom la jaamu jaamu yàlla yi nekk fii. loolu sant yàlla bu baax waaw loolu nag moom du ma ci du ma ci sori parce que mbiru artiste artiste bi la man li ma concerné rek mooy mbiru fan club bi mhm. mais xam naa ne du ñàkk sori baa mi ngi am luy mhm. a mag ah, waaw lu rëy rëy jaajëf frère jaajëf asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu maa ngi lay <laughs> gi ñaa laa gis nomb naa la lool. yaa ngi ci jàmm ñu ngi am jàmm mbokki Dakar Midi ak mbokki Wasaare. Mhm. ñëw tey seet si la ngay def li nga xam ne du am solo. day taxaw si rompé bi joxe ndogu jox taximaan yeeg. ñëpp daal ci daal ci ñëw daal ndogu mu nekk initiative bu nice daal mhm. tey euh, sori ba initiative boobu tey fu mu jógee ci gars yi man de duma ci dara mhm. gaa yi les amis de Soriba ñoo décidé affaire bi mhm. man sax dafa ma bett ñu ne daal tey dañ bëggoon ñëw ci rond bi fii joxe ay ndogu ma ne leen ay ca donc loolu jiital Pape Faye prési donc euh, ak ñi nekk ci ginnaawam ñëpp muy les amis de Soriba maa ngi leen ci gërëm di leen sant ndax di tiyaaba la joxe ñam dafa baax surtout maa ci weeru koor xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi ciy embouteillage yi dañu woor ba ngoon amuñu ñu yegg seen kër yi pour ndogu ñu jox leen lu ñu ndogoo loolu ama c'est quelque chose quoi incha allah mu gis initiative bi maanaam euh, artistes yi ñu ngi ko defal ñëpp li as néew li ngeen am ngeen bokk ko ñëw bokk askan wi mhm. tey mu nekk affaire bu geste bu nice tey lan ngay wax ci loolu waaw loolu lu noble la mooy esprit partage bi rek Sénégal pays de la Teranga donc esprit partage bi ci bokk ko def ko voilà ñuy noonu mais daal waaw <laughs> yaa a xam bu jógee ci lii sëriñ si lan lañ jëm après korité gi doy waar waaw war a ñëw de waykat yi ah. lu doy waar lu doy waar loolu dañuy ñëw toog ñu yaatal ko waaye en tout cas fan yi ah kuy génnee na génnee de ndax lu doy waar a ngi ñëw waaw boo génnee génn yow la <laughs>